Jean xibaar bi nag euh, mi ngi am léegi benn accident bu métti métti bu ñuy wax ci diwaanu mbuur ci yoonu Joal euh, benn camion bu dalanteeg benn kalandoo muy accident bu métti métti wax nañ ni euh, ñeenti nit faatoo nañ ci am na ci ñi ci am ay gaañu gaañu. ngi jaal mbokk ñi nga xam ne ñoo faatule ñaan borom bi yërëm leen xare leen àjjana. Jean xibaar bi nag mi ngi am léegi benn accident bu métti métti bu ñuy wax ci diwaanu mbuur ci yoonu Joal. Euh, benn camion bu dalanteeg benn kalandoo muy accident bu métti métti wax nañ ni euh, ñeenti nit faatoo nañ ci am na ci ñi ci am ay gaañu gaañu. ngi jaal mbokk ñi nga xam ne ñoo faatule ñaan borom bi yërëm leen xare leen àjjana.